اللهم يا رب افتح علي فتوح العارفين بحكمك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام يا ربي زدني علما اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد التجاني وعن جميع خلفائه ومقدميه وعن جميع أهل طريقته وأهل مودته بكي جلتي yi يكتي كدو دي kaddu di ànd ak yéen di sant bur yàlla di ko على قبلة الأرواح di mawlaana muhammadin alayhi salaatu wassalaam ak waa këram ak i saxaabaam ak soxnaam ya ak mbooleen njabootam ga salaatu ak salaam boo xam ni danay baawaan ak a xëppu ba àgg ci képp ku teg sa tànk mbaa sax ku tegul sa tànk ala siraat al mustaqim ndax jullik yàlla ci yonent bi yërmande la di ñaan sunu boroom niiri barkeem ya ak niiri ngërëmam ya ak niiri xéewalam ya ak niiri leeram ya yàlla mu mu den di ko dotti ala dariixi شيخنا ووسيلتنا إلى الله باب الحوائج إلى الله أبي العباس أحمد التجاني أقوى كرم أكي صحابام أك خليفام ياك مقدمام ياك تالو بيميا أك مبولة سوبيم يا يالنا بور يالا بولة نيوكي سوبيم يتدق إيه دي نيانال مبولة نيون يالله yàlla na buur yàlla di sëppintal ca ñoom mboole faydul anwaar ya ak faydul barakaat ya ak eh, tuxaf ya ak minax ya te yàlla boole ñu ca ñoom e di wax képp ku ñuy déglu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jàmmi yàlla ak yërmandeem ak barkem yàlla bur yàlla boole defal ñu ko dunyan wa uxra di jaajëfal ak a sant ak a ñaanal yàlla jamono bu nek sunu serigne dara Seydi Ali harad Barrad al Fasi mom mi nga xamni ligey bu reuy bi di jawahir al maani wa bulugh al amani fi faydi abil abbas tijani bur yàlla mi ngi ko jaarale ca mom yalna bur yàlla fayal nuko ko tabarakallah mbok yi ñi ngi won ak yéen ci al awwal kérok ñu daanele won ca bami wax aka présenté sayidi ahmad attijaani radiallahu anhu ci taxawaayam bu mu amoon ci tool boobu ñuy wax lislaam nde lépp lu mu fekkoon muy jeexitu yonente alayhi salaatu wassalaam ki saabaam ridwanullahi alayhim ajmain cheikhu tidiane ba mu ñëwee la mu jëkk a def mooy dafa fexe ba jàng ci dimbalal yàlla ak wayjur yu baax mu jàng ba deñ réer xam lan moo di alchariatul muhammadiya xam lan moo di ad diinul islaami wëlbatiku nag dal di investir xam-xamam ak jotam ak yitteem yépp ci tool boobu ñuy wax lislaam yàlla nañ ko yàlla fayal loolu moo waral nga dégg ca ba muy daaneel daan wax naan wa qad ahya allahu bihi sunana maghribina bada durusi aathaariha wa xumuudi anwaariha cheikhu tidiane radiallahu anhu bur yàlla dundele dundele na ca moom loolu nga xam ni Seydi Seydi Ali nee na lépp lu doon sunna yonent te raafoon lépp lu doon sunna yonent bi te giimoon ci sunu maghrib gii nu nekk muy dëkki sowu jant yi Cheikh Tidiane radiyallahu anhu mooy ka ko dundal leer ya gannaaw ba mu giimee gannaaw ba mu fayee ka nga xam ni moo dikkaat jafalaat ko Cheikh Tidiane andi wu lu bees waaye daf fekk loo xam ni yonent ko sampoon ñu doxale ca gannaaw ba loo xam ni du noonee na ko yonent bàyyi woon ba mu dikkee mu daal di rectifier waat rek moo tax nee na takk-takk ya tasaaroo na nit ña daal dinañu wëlbati ko aajowoo tudd yàlla bëgg fu ñu toll di tudd yàlla ndax samarat ya ca ne ak di julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam لولا ورا الممسير علي مدال نسأل الله تعالى أن ينظمنا في سلكه وفي دائرة حزبه بجاه حبيبه ونبيه سيدنا محمد وآله وصحبه من بور يلا يلا نجو بول موم سنو بروم تن نصب بوبو بيني موي نصب رنغم غا موم شيخ تجان نصب رنغم غا موم شيخ تجان بفكون نيكو يلا أم نيمو أم نيمو أم ولا بوك نيكو يلا بولل بفكون أب تشق Seyda Ali nee na yàlla na yàlla boole ñu ca per ya te kii di ñaan lii kat gannaaw Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu ci ñi ëpp wilaya ci xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam gannaaw saaba yi ci la bokk te ànd ak loolu yëpp ñàkk wóolu pexem yàlla ak xam ni yàllay doxale tax mu ni nasalu llaha taala an yunadimana mbokk yi modestie dafa am solo waaw la koy def ci nit nag ñaare mooy xàmmee ak ràññee te xàmmee ak ràññee mënuta am lu mooy nit ka day jëfandikoo am xelam tam xel ku ne xam na ni xam moo koy tàggat te xam-xam lu kon tabaarakallaahu nañuy bañ di tëb étape yi kon nag tey mbokk yi ñi ngi tàmbalee ci way juram wu góor wa moom cheikh sayid ahmad tidiane radiallahu anhu sayid ali la mu laaj cheikh na ahmad tidiane yi ca way juram wa ko jur danañ ko leeral insha allahu taala moo doon kan ak taxawaayam ci lislaam ak euh, jaloore ya nga xam ni yàlla defaloon na ko ko moom woy jur wu góor wu cheikh sayid ahmad tijaani radiallahu anhu ndax nag e, tabarakallah na ko yonent waxe woon rek ci xaq nga xam ni xaq bu ne la way jur ameel ko doomam waaw xaq bu ne la way jur wu ne amel nga ko sa njaboot yonent bi nee sallallahu alayhi wa sallam inna min xaqil waladi ala walidihi dafa bokk ci xaq yi nga xam ni ju ne sa way jur amel nalako la ko bi ci njëkk te jiitu ci moo di yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na bés bu ganee jamono na nga ko wutal tur wu rafet loolu nag wax la joo xamante ni ni bu fekkoon dañ koy tatbiq manam bu kon dañ ko bëgg euh, mettre en application ku ne xam na ni doom du xey rek am faw mu am wayjur wu jigen kon dom fa ngay ak mom ci cër bang ko amel haq jang ko amel moy nday ju muy titero ak nday ju kenn mënta waxal dara neena lolu moy la jëk ndax doom munta soso ci bay rek kon wax ji lolu yépp lamb kon bi ci jiitu yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ko moo di an yuxsina smahu mooy rafetal aw turam ndax tur mbokk yi dafa am solo lool ndax borom bi su demee bay wax ci alquran walillahi lasmaul xusna kon nga xam ni tur am na solo i tabarakallah yonent bi teg ci it ni wa an yuallimahu lkitabata doom soo ko amee xaq la ci yow woy jur wi nga ameel ko ko fexeel ba jàngal ko mu mën a bind ndax nag bokk yi bind dafay loo xam ni ci li ñuy jottali koo xam-xam la bokk boo déggee nga jàngal ko mu mën a bind ndax bind dañ koy jottali koo xam-xam moo tax allama bil qalam ko defee nag loolu jur wu ne war na koo sonne ci njabootam benen bi ci des yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na wayjur wu itam xaq la nga amel ko sa dom fexel ba nang ko yar wa an yurabbiyahu nga tarbiyeko nga éduquer waxna len ni len l'éducation c'est se convertir de l'animalité à l'humanité nit ko gis muy dox am nak njaay al gu nek ci mom makna amna na bayima ju nek ci mom naka jek yàlla mo concevoir nonu nit motax mu bolé kook ñaari wayjur outel ko asaman outel ko souf jox ko oxygène bu toll ni jaww ji jox ko géej jox ko jéeri jox koy montagne sampal koy garab xalal ko lépp soo ko fee wàcc yàlla subhanahu wa taala desee lu ñu dara moo tax nitu yàlla bu mag ba daan ko wax yal yàlla fay yàlla ndeysaan waaw yal yàlla fay yàlla waaw yal na yàlla fay yàlla waaw dégg nga e, tabarakallahu mu ni na ko yar na ko tarbiya tarbiya nag boo ko déggee mooy fexe ba jox ko jikko jikko boo xamante ni bii ni bés bu la gisatul dana mën a dem ak boppam parce que tarbiya loolu rek lay firi mooy koo xam ni bés bu demee ba gisatule dana mën dem ak boppam léegi nag ñun dañoo tàmm di ñu yar ci e, ABCD baax na ABCD dañoo tàmm di ñu yar ci loolu ba dañuy dema dema dema dem ba jikko yi ñooñu la ñuy yor alors que loolu xam-xam la nit war na koo mën a jàng te ñu def ci mom yarub diine bokul ak dara ndax l'islam yarub diine wul dara dara dara akum jang su ko nak nag tabarakallahu mbokk yi wayjur wu ne la nga amel ko sa dom fexel ba yar ko yarub diine moy wa an yurabbiyahu ndax olof nee sa dom kat boko amé amee te yaruloo ko yaa ko ray te bu lepp lu la nakari ci mom lay bayiko moo waral dégg naa ci jamono maam Cheikh Alhaaji Malik radiallahu anhu genn góor fàtte naa fan la jógeeti waaye daal dafa ñëw ci moom ni ko man daal yàlla daf ma may njaboot te mënalu ma leen dara Cheikh Alhaaji Malik dégg naa da ko waxoon keroog na ko bu fekkee yàlla daf laa may njaboot jéemoo ci ñoom dara lu dul naan mënalu ma leen dara ëllëg yowmal qiyaam yàlla dana la booleeg ñoom ngeen ni wetti ca sawara te kenn du mën ci yéen dara القرآن يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم بور يلا nee القرآن ci alquran يلا يلا gëm yàlla yàlla nañ ca yàlla boole buur yàlla nee na xoolal c'est un impératif divin qu anfusakum fegal leen seen bopp waaye wa ahliikum fegal leen seeni njaboot ak seenu ñoñ lan ngeen leen di fegal naaran safara léegi nu ngeen leen di fegale safara mooy ngeen yar leen yarub diine léegi nag mbokk yi lan moo di yarub diine ndax yarub diine mooy nga jël xale bi yóbbu ko ca daara ja mu jàngi alquran déedéet loolu du yarub diine loolu jàng alquran la bokkul buñ jaawale loolu du yarub diine il faut que les choses soient très claires aussi yarub diine mooy yonent bi bu daan dugg ci kër dafa am lu mu daan wax dafa am tànk bu mu daan jiital bu daan génn dafa am tànk bu muy njëkki te dafa am lu mu daan wax yonent bi alayhi salaatu bu daan lekk daana am lu muy wax daana am nu mu tooge daana am nu mu daan lekkee yonent bi alayhi salaatu bu lekkaan ba noppi am na lu mu daan wax yonent bi alayhi salatu wassalam bu daan tëdd ci kaw lal fasiyene wir ak wetam dallu as leuf dana am lu mu dan wax yonent bi alayhi salatu wassalam bu yewuan ci ab lal dana am lu mu tiba yonent bi alayhi salatu wassalam bu daan sol yere dana am lu mu jang yonent bi alayhi salatu wassalam bala mu dan andak soxnam dana am lu mu jang yonent bi alayhi salatu wassalam bu dugg ci jakka dana am lu mu jang bu ci jakka daana am lu mu jàng daana am nu mu daan comporté woo ci biir jàkka ci digganteem ak ña ko yàlla booleel ñu di ay sahabaam ridwanullahi alayhim ajmain yonent bi alayhi salatu wassalam bu daan dugg ci marché bi daana jàpp ndax njàpp di dem ci marché dañ koo sopp ci lislaam waxuma yor naa jàpp damay dem de déedéet nga jàpp soog a jóg laa wax yonent bi daana ko def ndax loolu yarub diine la naka noonu bu daan dem ca marché ba am na lu mu daan gis nga mbokk yi yii nii ak ya ca des képp ku am sa njaboot te bëgg koo fegal safara fii ngay tàmbalee ndax lii mooy yarub diini bu ñu jaawale njàngum diini ak yarub diine bokkul yonent bi alayhi salaatu wassalaam borom bi daf ko wax ci alquran iqra bismi rabbika alladi xalaq xoolal bu fekkee dégg nga xaayaani wax ji di xam ni yoneen yàlla da koo jagal defar ko tërbiye ko yar ko ba mu mel na mu bëggee moom yàlla mu soog koo yebal ci nit ñi déggal wax ji iqra demal ngalal daara yow yonent alayhi salaatu salaam bismi rabbik waaye nga defe ko ci tur ak sa ndigalal borom bi nga xam ne xoolal moo la yar yor la kon nga xam ni yar bi moo jiitu yonent bi alayhi salaatu salaam naka jekk yàlla dafa def ci moom lépp loo xam ni kattan la guy tax nit mën a mel na yàlla bëggee yàlla da koo yar toqi ko ci loolu ba fexe moom sunu borom ba yonent jaar ci métier yi nga xamante ni bii ni bu njëkk dañ ci daan yar nit lu mel ni njaay nga xam ne dañ ciy testé kóolute nit lu mel ni sàmm nga xam ne dañ ci testé yërmande ci nit lu mel ni ay nit di la tooñ guddeeg bëccëg ñu ciy teste ndax yow ku mën a muñ nga ndax ku mën a gàddu nga te ñett jikko yi bu xasee daje ci yow sangi jikko yi daje nañ ci yow yonent bi alayhi salaatu salaam mbokk yi nii la daan jëflante ak ñi nga xamante ni bii ni ñoo di ay ñoñam kon nag nañu bàyyi xel ci loolu ndax li tax ñuy taxaw ci foofu di ci def le point mooy dañu jëm ci way juru Sayyidi Ahmad Tijan radiyallahu anhu te ni mu mel ay way juram dañ ca participer à grande échelle et c'est tout à fait normal kon ñu mentionné li nga xam ni moo di yarub diine fàttali ko mbokk yi incha allah beneen yoon bu nu ñëwee ah ñu jéem a seet nan la ñuy duggee ci détails yi rek ñu def benn rappel ci yii ma wax benn bu ci nekk ak nu ko lislaam euh, euh, jàngate ak nan lan la ca yonente alayhi salaatu salaam daan jàng parce que yii ku ko xamul nag seen jullit des na de fokk ñu xam loolu kon nag nee na moom Sidi Ali nee wa abuhu radiyallahu anhu huwa alcheikhu alimamu kahfu alislami wa malaadu alanami alcaalimu alchahiru alwariu alkabiru addallu ala allahi waljaamiu alayhi waddaaci بحاله ومقاله اليه حجه العلماء العاملين ومحجه السالكين المسترشدين ابو عبد الله سيدي محمد بالفتح ابن ابن المختار وكان عالما ورعا متبعا للسنه مدرسا ذاكرا وكانت تاتيه الروحانيه يطلبون منه قضاء حوائجه فكان يمتنع منهم ويقول اتركوني بيني وبين الله لا حاجة لي بالتعلق بسوى الله تعالى بقي تقتل دعاي وخني وأبوه ويجرم بجور مم سيد أحمد تجان رضي الله عنه يلنا بور يلا جرمكم ويجرم ووله هو مم الشيخ مودي سرينب شيخناك بني كواخي كلا كعرب bu fekkee du mastalax bi nga xamante ni bii ni moom moo di suuf yankee yi cheikhu li muy firi mooy mag rek mooy ku màgget moo tax ndeysaan nga dégg shaa'ir ba doon ko way benn waay ndeysaan fekk góor gu mu toog mu ni ko yow de léegi daanaka cheikhu nga mu ni ko déet da nga maa jortu rek ma cheikhu la waaye cheikhu kay ku ko nekk mooy ku nga xam ne dem na bay dukkat di doxee ñetti tànk mooy day yor bant nga dégg mu naan ko zaamati ni cheikhan walastu bi cheikhin innama cheikhu man yudibbu dabiba bu ko defee nag kon cheikhu naka jekk mag lay firi waaye même mas istilaax boobu sax buñ ko jëmee ci sëriñ baax na xam nga lu tax parce que olof daf ni mag du yàlla waaye yàgg nag yàlla te ku yàgg ak yàlla xam yàlla te xam yàlla xam fu muy jaar yàlla boo demee ci moom mu teg la ca yoon wa benn la kon da ngay wax ni moom way juróom woowu al cheikhu moo di sëriñ ba al imaamu moo di njiit njiit boo ko déggee li muy tekki al imaamu huwa alladi yuqtada bihi aw al imaamu huwa alladi yutamu bihi imaam boo ko déggee mooy ku ñuy ci moom imaam soo ko déggee mooy koo xamante ni bii ni da bàyyi ba mu def ngay soog a def moo tax imaam bu ñu koy wax dëgg yonentibi alayhi salatu wassalam rek moy iliman motax nga dégg ci alquran suñu borom nan wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin imam mubin bobu ñaari piri la am bu njëkk bi moy lawhul mahfuz lépp lu mu doon ñun yàlla teunk nañ ko fa waye benen bi ci dess lawhul mahfuz bu mag bi modi yonentibi alayhi salatu wassalam ndax huwa al imaamu ala alxaqiqati waaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy bi kon da ngay wax ni wayjuram wowo woowu la royu kay la kahful islami nee mom mo don lolou nga xamni euh modi khuntum l'islam bo dege khuntum l'islam moy ki nga xamanteni bi ni l'islam la ba jeex tak léppam l'islam la parce que keuful l'islam liñ ci nam rek métaphore lo pour wane ni nit ki dafa jëfe sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam top l'islam bi ci bir ak ci biti loolu rek la wamaladul anami anaami nee na way juróom woowu itam moom moo doon wéeruwaayu mi ndeef yi al alim boroom xam-xam la woon al shahiru ku siiw la woon al wariu ku sàmm la woon al kabiru ponkal la woon ad dallu ku daan tegtal la ku daan tegtale la ala allahi ca yàlla waaye itam wal jaamia nee ku daan ku boole la ku daan ku daan boole nit ñi la alayhi ak yàlla xam nga nit mën na laa tegtal ak yàlla te du la booleeg yàlla waaye ki booleek nit mooy ki jàpp sa loxo ba ci nit ni la diw kii mooy diw kii mooy diw xam ko ngeen xamante mu boole la ak moom mu jeex loolu mooy wal jaamiu alayhi dafa booloog yàlla te daan boole nit ñi ak yàlla moom way juru Cheikh Sidi Ahmad Tijani radiyallahu taala anhu kooku amul werante waaw wa dallu alallahi ji nag moom ngeen di jàng ci seen laxdari mooy bi muy wax naan nit nit wala boog mukallaf mooy ki ñu togg jëf ki ñu togg jëf bu ngeen ko déggee mooy ki nga xam ni tey majeur na lu waroon way juróom wu góor ci wàllu jaamu yàlla ci wàllu topp yàlla ci wàllu temm ci digle yi ak moytu tere yi lépp lu ca waroon ay way juróom tey war na ko parce que dañuy wax mu mukallaf mukallaf di ko lisimal te mukallaf li muy tekki mooy koo xam ne tey majeur na bu defetee lu baax ñu bindal ko ca tuyaaba bu defetee safaan bu ko tuubul mbaa jéggul bu ko yàlla ñu bindal ko ci bakkaar kooku nag la ñu wax ni warul ci moom muy jëf lu mu xamul lu ca yàlla atte nga ni ko waaw bu xamul nu muy def mu ni muy amul lay bu xamul na laaj ñi xam moo yasal al nga ni ko waaw ndax rek ku xam rek waras na koo mën a laaj ba pare wëlbati ko roy ci moom mu ni déedéet nit mën naa xam te du jëfe li mu xam nga ni ko kon buy roy nu muy def mu ni na roy ci ña jëfe sunna yonent bi wa waaw moo tax mu ni wa yaqtadi nay roy bil muttabiina ca way topp ña li sunnati muhammadin ñeel yoon wa yonent yàlla muhammad xàlloon ca waxam jaag jëfam ja doon ko leerale waxi yàlla ji alquran nee na ña topp yoon woowee booy roy royal ñooñu nga ni ko waaw ñooñu leen di mu ni alladina yadulluuna ala taati illahi wa yattabiu wa yuxadiruuna min ittibaai shaytaan mu ni ñooñu nga xam ni ñooy roy sunna yonent bi alayhi salaatu nga xam ni kuy roy ñoom nga war a roy alladina mooy ña nga xam ni yadulluuna ñu tegtal nit ña ala taatillahi ci topp yàlla soo dikkee ci tàng-tàng bi ci seen xaal mooy seen melokaan ak seen kaddu lu mu ci bu jugee da ngay sentir ni kii kat waxam yàlla la jëfam yàlla la booy roy royal kooku ba pare wa yuxadiruuna ñu di la wattuloo ak di la moytandikuloo min ittibaai cheytaani ci topp cheytaani waaye sëriñ boo xam ne yow boo ko gisee wala nga sa xel ci àddina rek lay dem sëriñ boo xam ne yow boo toogeek moom sa xel du dem ci yàlla doo yëg yàlla ba pare yow nga ni yaa ngi topp yaa ngi koy topp yaa ngi ànd moom mais yow kenn sànku la yaa sànk sa bopp parce que dafa am ay règle de base yoo xamante ni bii nii nit ku jug ku ne di wuti yàlla war nga koo xam bala ngaa jóg kon da wax ni way juram juróom woowu addaallu mooy aji tegtale ja alallahi ci yàlla waaye wal jaamiu mooy aji booloo ja alayhi ak yàlla waaye mooy aji boole nit ak yàlla waaye wa daa'i mooy aji woote ja daf daan woo nit ñi jëmale leen ca yàlla te daf lan daan woo di ko jaarale bi xaalihi wa maqaalihi melokaanam boo ko nee jàkk yow ci sa jëmmi bopp da ngay wuyu ji yàlla ci saa si ndax sa xel day dem ci yàlla beneen bi ci des kaddoom bu jibee moom way juru Cheikh Seydi Ahmed Tidiane radiallahu anhu kaddoom nee na radiallahu anhu rek yow ci sa bopp dangay ngay wuyu ji wooteeb yàlla ba ndax il faut que ñu comprendre ni gis nga yonent bi alayhi salatu salaam moom la yàlla wax ni bu wootee nañ ko wuyu yàlla waxul bu ma wootee na ngeen ma wuyu de foofu ngay xamee pouvoir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yàlla jox ko ko ci alquran moo tax gis nga yonent boo ko bëggee xam jërul sax dem ci téere yi demal ci alquran rek wax ji jeex ya ayuha alladina amanu stajibu lillahi وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم سيت الله يجنم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم وقل إذا دعواكم يا أيها الذين آمنوا أي إيه نيغا خامني ين بوك دائرة الإيمان يالا نتي الله بوله Yen ñi ni la ilaha illallah deggal ni yalla moy kenn wax muhammadur rasulullah deggal ni yent yalla muhammad modi ndawal Yen yen ñi wax lolu borom bi neena ci alquran istajibu wuyu ji len wuyu ji len buddiku len ci ngeen nek te dem wuyu ji ñu ni ko ku ñi wuyu ji mu ni lillahi ñel jëm ci yalla ñu ni ko fu mu ne mu ni ah kon bayilin len bobu wali rasuli bu len yonent woowee dem len ngeen wuyu ji ko waye nak ida daakum mu mel ni ku tëral conditionnalité ida daakum bu fekkee woona leen moom yonent bi waxul yàlla ak yonent bi de daf ni wuyu ji leen woo bi yàlla ak woote bi yonent bi bu fekkee moom yonent bi woona leen foofu ngay déggee ni yonent ku ko wuyu yàlla nga wuyu loolu rek laa bëgg a wax moo tax gis nga yonent bi alayhi salam wallaay bu ma gisee léeg-léeg ak yenn wax yi ñuy jëme ci xaqam da ngay sax tiit jaaxle parce que loolu weddi yàlla ba mu sës la yàlla xam na nañ ko moytu et c'est très dangereux yonent bi du moromam kenn la wax loolu nañ ko xam de ok yalla ko wax alquran la ya ayyuhal alladina amanu stajibu lillahi walir rasuli idha daakum wa khul idha da'awakum ñom ñaar buñ ñu leen woowee déedéet yonent bi bu leen wowe ku yonent bi yàlla nga wuy ji amul werante te ku lankal yonent bi mais lankal nga yàlla mais jeex na kooku amul werante dafa mel ni rek gëm naa yàlla waaye gëmoo yonent bi ah, gëmoo dara kon gëm naa yonent bi waaye gëmoo yàlla gëmoo dara kon ñaari ñooy ànd abadan duñ teqali ko kon da ngay wax ni way wa daa'i mooy aji woote ja jëmele ca yàlla bi xaalihi ca meloom wa maqaalihi ak kaddoom ilayhi ca moom ca moom man moom yàlla da ngay wax ni xujjatul ulama il aamilin way juróom woowu moom moo doon layal borom xam-xam ya nga xam ni ñoom ñoo doon jëfee lañu xam boo déggee aw lay mooy koo xam ni fum ne tëll ñu gën a nawaat gën a fonkaat gën a sargalaat képp kuy boroom xam-xam tey jëfe la mu xam te loolu c'est très important mu ni it wa ma xajjatu saalikiin moom moomu di way juróom moom mooy yoon wu leer wa nga xam ni képp kuy soobu yàlla ca yoon woowu ngay jaar waaw nitu yàlla mooy yoon wi ngay jaar pour dem ci yàlla léegi nag moom wayjuru Cheikh Seydi Ahmad Tidiane da doon yoon wu leer maana ña nga xam ni ñoom la ko yàlla boolee loon ca jamono moo doon yoon wa ñuy jaar pour yegg yàlla al mustarshidin ña nga xam ni ñooy woy sakkoo jub ñooy woy sakko gindiku yàlla ci yàlla boole nee na wajuram woowu mooy wan mooy kan mu daal di ni abu Abdullah, moom lañ daan dàkkatale abu abdillah sayyidi sama sang ba Muhammad nee na bil fathi nga Fatako. waye lol nak dana ci taxaw touti même bu fekke dafa préciser bil fathi pour mentionner ni non lañ ko daan wowe la waye Cheikh Seydi ahmed Tidiane way jurom ala kulli hal Muhammad la bi bi tadmim al mim lu tax parce que fokk nit ñi xamni shurafa yi dañu fonkon yonent bi alayhi salaatu salaam bëgg yonent bi alayhi salaatu salaam gëm yonent bi alayhi salaatu salaam warmaal yonent bi alayhi salatu wassalam ba mu yegg ci turam wi bëgguñ ko tudd muy turam woowu ñu ko woowee di Muhammad bëgguñ koo tudd di ca teg naka su dul noonu ba tax kuñ ko tuddee suñ la bëggee wax naka su dul noonu dañuy damm tur wi wala ñu soppi ko wax lu mel ni Mahammad wala wax lu mel ni Mahmad su boobaa amatul maana mënee su koo firi parce que Mahammad la maana lahu laysa yu'rab Mahammad daanaka du dara kenn xamul lan la waaye boo nee Muhammad su boobaa dañuy xam lu mu doon mooy ka nga xam ni dañoo bareel ak cant ca moom te yonent bi alayhi salaatu salaam moo daan wax ni na ngeen ma ruus ba ci sama turandoo yi mbokk yi ku ñu tuddee yonente bi alayhi salatu salaam te mu wér ne yonente bi la ñu tuddee ëllëg yowmal qiyaam yàlla mën naa xool ci yonente bi ba du la xisaab yàlla mën naa xool ci yonente bi ba doo dem safara tudde leen seen doomi yonente bi ah di nga dégg léeg-léeg am na lu ñuy faral di wax naan képp ku ñu tuddee yonente bi alayhi salatu salaam wala képp koo xam ne sa tur Muhammad la wala Ahmad yàlla mën na laa bañ a régler nañ koy waxee noonu mais pas di ci dogu ni yàlla du la régler yàlla gis nga dara safu ko mbokk yi foog ñuy xam ni yàlla moom yàlla rek la na nañuy demee prudence ci yàlla nañuy demee prudence ci yàlla nañuy demee prudence ci yàlla ku xam yàlla du dogu mukk ci yàlla ma la ko wax cheikh alxaaji umarul fuuti biñ ko ne faydu tijaan bii cheikh tijaan doon wax naan bés dina ñëw mbooloo mu bari fàq dugg ci tariqa bi lu jafe woon lu bari yomb lu jafe woon lu bari jàppandi waaw faydu boobu xanaa yow yaa ko yor lan la leen ci teg ah mën naa nekk waaw mën naa nekk de gis nga mën naa nekkam jooju mën mënta nekk daa nekk waaw ah, duma dugg foofu nag waaye li may wax xam naa ko te ñi xam-xam nañ ko foofu laa yem kon nag nee na waajuram woowu Muhammad la tuddoon ibnul muxtaar ki nga xam ne moo doon doomi muxtaar wa kaana nekkoon na moom waajuram woowu aaliman doon borom xam-xam xoolal mbokk yi boobu ba tey dangay gis ni baatu aalim day dem ak a dellu day dem ak mbokk yi xam-xam dafa am solo te xam-xam balaa am solo nag di xam-xamu nitu yàlla yi maa la ko wax xam-xam dafa am solo te xam-xam balaa di xam-xam di xam-xamu nitu yàlla yi Sénégal di Touré radiyallahu anhu ci jamono dafa amoon benn jafe-jafe yaakaar naa ci wàllu bëtam la suma juumul ñu boole kook benn tubaab ci jamono yoo yële pour tubaab bi seetal ko bët yi bi mu dikkee tubaab bi ni ko ah, papa xanaa rek de. ñu gaaw parce que dama war a am euh, euh, euh, rendez-vous aéroport ndax dama war a dem damay génn réew mi ndax dama am benn soxla bu may doxi góor gi ni ko ah mu ni ko waaw mu ni ko waaw ndax dama am benn leçon boo xam ni moom laa war a terminer ci wàllu yoga sëñ Hadi ni ko waaw kon te ñoo toppatoo bëri bu ñu paree ñu waxtaan mag yow waaw bu ñu paree ñu waxtaan mag yow tubaab bi daal di koy seet toppatoo ko ba mu àggale sëñ Haadi tëjoog bi lu jégué ñaari waxtu tubab bi mujul dem seigne hadi moko ko mottalil dërs boobu nga xamni mom la warona jël ci yoga seigne hadi Touré la wax radiyallahu anhu mbokk yi fokk ñu xamni ñun bari na luñu ñu xam-xam du xam-xam am jangala et il faut vraiment nak faire la distinction entre dem jangi ak am xam-xam xam nga on va à l'école pour s'acquérir des connaissances mais n'est pas parce que dañuy dem école dañ fay fekk xam-xam se fa xam-xam dañ koy dabu ji li ngay dabu amago ko mbokk yi fokk ñu xam l'imam al Ghazali won ko onze ba jawahir ba mom ak le savoir n'est source de bonheur que lorsqu'il est détenu par les hommes hors du commun mbokk yi xam-xam balaa di xam-xam rek di xam-xamu nitu yàlla yi kon mbokk yi nañu góor góorlu ci mag ñi moo tax daf ni moom way juróom bu jigéen wakkaana nekkoon na aliman di borom xam-xam waaye warian di ku sàmm ku sàmm nag boo ko déggee mooy koo xamante ni bii ni lépp lool borom bi tabaraka wa daf ko aaye dana fexe ba cëram du ci tab bi yàlla nañ ko yàlla defal ak jafe wax ko de moo gën a yomb naka noonu muttabi'an way juróom woowu aji topp la ku daan topp ak di toppatoo la li sunnati ñeel sunna yonente alayhi salatu wasalaam waaw mbokk yi gis nga nit luk mayam rëy rëy ci yàlla nga natt ko ci sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam mu lajj nga natt ko ci sunna yonente bi mu échec nga natt ko ci sunna yonente bi yëg ni kii dara dara dara ci sunna yonente bi jëfandikoowu ko su boobaa xamal ni seytaane nga amal affaire waaye dootul ab seriñ sëriñ bu weesoo ñeenti jabar te dafa bari lool léegi ci àddina bi waaw dafa bari trop li may wax xam naa ko waaw te Cheikh Alhaaj Malik radiallahu anhu ci jamonoom nee na Malik li muy gàtt gàtt xam-xam xam na ni ñeenti ñi kenn mun leen tee dem safara noonu la ko daan waxe Malik li gàtt gàtt xam-xam na ni ñeenti ñi kenn mënu leen a teree dem safara ki takk juróomeelu jabar ndax nee na takk sa way jur li muy garaaw garaaw garaaw ndax sa way jur wu jigéen yonent nee na boo ko takkee mel na ni nga màbb gi juróom yoon te ku kaaba gi benn yoon yonent ne kenn mënu laa rammu ëllëg yawmal qiyaama sawara nga jëm yal nañ ci yàlla musal yonent bi xoolal wax ju diise nii sa wayjur wu jigéen nga takk ko li muy garaaw garaaw garaaw yonent nee na takk juróomeelu jabar moo ko gën a garaaw cheikh alhaaji malik radiallahu anhu ni ñeent ñi Maodo li muy gàtt-gàtt xam-xam xam na ni safara la ñu jëm ki takk juróomeelu jabar safara la jëm ndaw si nangu ñu takk ko juróomeel safara la jëm ña takk sëy safara la ñu jëm ak ña ko seede képp ku ko dégg mën caa wax te waxoo safara nga jëm moo tax mbokk yi e muttabian li sunna way juru cheikh Seyd Ahmad Tidiane ku topon sunna yonente alayhi salatu wassalam la waye mudarrisan ku dan jangale sunna yonente bi la ku dan jangale alquran la zakiran ku dan tuddu yalla la sahon dafa laggi won saxon ci tuddu yalla lolo tax sax demon na wa kaanat nekkoon na tatihi dan ko dikkel mom way juru cheikh sayyid ahmad radiyallahu taala anhu ar ruhaniyatu lolo nga xamni ne moo di ruhaan du dara quwatu lan war rek ay katani leer la yo xamni lele ñu dugg ci ben jëm materialiser wu ci mom dik di wax ak yow lolo day am rawaan yi daanañu ñëw ci moom am na ñu ko gëmul nag te léeg ñu tiit guddi daw génn néeg bi ba pare yi wet di wet rawaan <laughs> rawaan kay daa am sëriñ <laughs> ah waaye yow góor gi Ahmed Diagne daayira ñëpp dégg nañ ko di lan moo ko booleeg Cheikh Al Hadj Malick radiallahu ponkal mu tolloon noonu dëkk ba mu dëkkoon ca boori Saalum góor gi Ahmed Diagne daayira li ko booleeg Cheikh Al Hadj mooy def daan bay bi muy bay at mu njëkk mi mu bay mënuta am dara nawet ba yàqu atum ñaareel ma nawet ba yàqu atum ñetteel ma nawet ba yàqu benn góoru shérif wax nañu ni ca jooja jamono ñëw gane si leen ca gox boo bële moom góor gi Ahmed Diagne daayira dem ca moom daal di ni ko dama bëggoon daal nga defal ma istixaara nga xoolal ma parce que nangam parce que nangam mais lu ko góor gi wax góor gi def ko ni wax dëgg yàlla yow daal sa problème du dara lu dul da ngay bay te say mbir dafay yàqu loolu rek mooy sa problème mu daal di ni ko waaw léegi loolu lan moo ko waral mu ni ko dara waralu ko lu dul ni sa mbir daa nekkul ci mbay nit da ngay xam fa sa mbir nekk c'est très important sa mbir dafa nekkul ci mbay mu ni ko fan la sama mbir nekk mu ni ko ci loxo góor gu njool ca kaw xeereer rafet lool ko ko gis bëgg ko mu ni ko waaw nan laa koy xàmmee Muniko ni ko ni nga koy xàmmee mooy ci digënté bo démé ci digënté ñaari dëkk lañ lay wax benen bi ci dess moy bo diké dang koy fekk mu tok di jàngalé ñëpp wër ko xëy ba ja foo natt wessu nako ko buy jàng ñëppay ndax ak xam-xam bu lèr ko ak lan muni ko du weesoog yow ñetti baat gor gi Ahmed jàng daayira tambali pour wax la mag ñi niñ daan wuté yalla kii no def mu am yalla kii no def mu am dara ca yalla ndax yalla da jaral motax góor gi Ahmed Diagne daayira tàmbali gox bu ne mu tabbi fa ci diggante siin ci diggante saalum ba ak si kajoor wax nañ ni keroog bi mu dikkee dafa fekk Cheikh Al Hadj Malick radiallahu anhu mi ngi toog xam nga e, ci gàttal fu jaar na fa ah, yii mu gis yee gis yii mu gis yee gis te yami gis du mat waaye daal bi mu dikkee ba dajeeg Cheikh Al Hadj Malick radiallahu anhu mbokk yi dafa dikk fekk Cheikh Al Hadj mi ngi toog di jàngale comme nañ ko ko waxee mi ngi toog di jàngale xam-xam bu leer ci diggante durar ak xurar yoo xam ni da koy dégg daanu nangu ci saa si ñëpp di fotus mag ñi looloo nekkoon seen charme mag ñi looloo nekkoon seen élégance mooy lal daara di tëral ay bind force bi foofu la mbokk yi ba pare wëlbatiku cheikh alhaaji malik bi mu nuyoo moom sid ahmed diagne daayira seej malik radiallahu taala anhu daf ko ni waaleykum salaam naka waa kër ga tafadal ñetti baat yooyu ko chérif bi waxoon waaleykum salaam naka waa kër ga tafadal jeex na mu ni ah yañu ma waxoon de ñett yi gis naa ko mu des benn ñett yi mooy góor gu njool gu rafet la boo dikkee da nga koy fekk mu toog di jàngale boo ko nuyoo du weesu ak yow ñetti baat beneen bi ci des mooy ci diggante ñaari dëkk bi góor gi jógee nag ba ba jàpp nag di dugg ci pantre bi pour waajal tisbaar nee nañu si góor si Ahmed Diagne Daara laaj nga xam ni ñoo nekkoon ci dërsi bi waaw kii moom fan la dëkk ñi ni ko ah way juróom bu góor de ma nga bawoo siin waaye way juróom bu jigéen ma nga ca boori wàllo ca gaaya radiallahu taala anhu sëñ Ahmed Diagne Daara xam ni kañ ko doon wax dajanaa ak moom Cheikh Alhaaji Malick indi ko fii Ndakaaru ci muqaddamam yu mag yi la bokkoon ci gàttal rek dama bëgg a wax rek pour wax leni rawanda am fofu la jëm motax Cheikh Al Hadj Malick radiallahu taala anu bim fi ne sëñ Ahmed Diagne daire sëñ Ahmed Diagne daire mom ci jimmi bopam tok na fi dakaru danaka ñaari at yo xamni pour mu am dara day jafe lol muni man ma ngi bëgg jaxlé wali yàlla bu tolni ni Seydi El Hadj Malick ma jëflante ak mom ak lañ ma wax ci mom ma gis ko ba nopi te mbir yi ta démé ni mako bëggé motax gis nga xalé li yéen lay waxal bu len yaakaar ni yàlla daf fi nekkal ki wala daf fi nekkal ka il faut que ngeen comprendre que ni yàlla yàlla la yàlla yoonam ci yii nit ñi di wax ak nit ñi ne lu ko neex lay def nde budut loolu du mën a nekk yàlla sëñ Ahmed Diagne daayira laa wax nga xam ni moom moo bindi bind dul xayraati bi ngeen di gis ci tariqa bi secret latif ya fa nekk yépp moo ko dajale yii mu jële ci kunnaas si sëñ Ahmed Tidiane yii ci Cheikh El Hadj Malick moo bind téere boobu nga xamante ni bii ni moom la ñuy tuddee aljawahirul usmaniya ala al itilaa'i fi l asraari rabbaniya téere bi kenn moolu ko mbindum loxo la yàlla dogal na man mii amee naa ko ah ay lasaar yu doy waar mi ngi ca sëñ Ahmed Diagne daayira mu toog ñaari at ba bés mu daal di ni man nag fi mu nekk ndem lu ma lekk sax mi ngi may jafe xaaral nag bu ko defee ma xëy nag daal di dem nag seeti Seydil Hadj Mbaye nag bu ko defee ma mën waxante ak moom wax nañ ni muy dox di dox di dox di dox ba agsi fii nga xamante ni bii ni wax nañ ni tëngéej la am na ñu ni déedéet àggul sax tëngéej mais nee nañu mu daal di romb mbooloo mu bari ñi ngi daw ñi ngi dox di jëm fan lañ jëm mu laajte ñu ni dafa am benn xew-xew ngénte bu am fii mu ne xaaral ma dem ci ngénte la bu ko defee mu mën faa mos dara su ma fa mosee dara comme xam nga ni kii doyoon na waar mbokk yi su ma fa mosee dara Ahmed Diagne daayira laa wax mbokk yi hmm, allahu akbar subhaana dil mulki wal malakuti moo tax taalibe yi nañu muñ mënta ñàkk mbokk yi taalibe day muñ taalibe day muñ mënta ñàkk yàlla kenn du ko amee noonu si ndax nag jaañ daayira ànd ak mbooloo mi dem ci tudd mi tudd moo xam ni xamu fa kenn kenn xamu ko fa mu toog ba yàgg jékki-jékki dégg benn baat boo xam ni ci biir mbooloo mi lay wax ana Ahmed Diagne daayira ana Ahmed Diagne daayira mu jaaxle parce que fii xamu fi kenn waa ji nee nañu am nduulañ la nduulañ mooy nit ku gàtt waa ji di dox di dox di dox ben way daldi niko ni ko waaw ki muy xam ki mu dendal niko kimi wo dang ko xam muniko ah mané ma fi tuddu Ahmed jang daire muniko kon kay wuyul yow lay waxal mu daldi ko koy loxo la béyk am nga tan la waji daldi ñëw ba ci seigne Ahmed jang daire daldi koy jox ben lettre daldi niko ni ko Cheikh Alhaaji Malik radiyallahu anhu mo la ko jox mbok yi lolay rawan seigne Ahmed Diagne daire ubbi ko daaja fendiwul cey Maodo radiyallahu anhu yàlla na ko yàlla fay day san ndeysaan sëñ Ahmed Diagne daayira daal di noonu la wàññeekoo agul ci waawan gis nga loolu ko si daaj Malick jox ba mu dikkee ba jël kurusam dal ca tuuti ca ëllëg sa day dox fii nii rek ci biir ndakaaru daal di dajeeg benn tubaab tubaab bi daf koo xool rek ni ko man daal il me paraît vraiment tu es un dama bëggoon rek nga ñaanal ma sëñ Ahmed Diagne ko waa baax na incha allah tubaab bi ci taxawaay mu génne 300000 ca yooyu jamono jox ko ca gannaaw ëllëg sëg sëñ mat Diagne daayira dajawaat ak moom mu waat trois cent mille jox ko ca yooyu jamono laa wax de c'est-à-dire dama bëgg a wax rek ci gàttal que ni sax loola tuuti na lool par rapport ak la ko taxoon a jug ci Cheikh Al Hadj waaye nag mbokk yi il nous faut vraiment nag ñuy xool eh, eh, léeg-léeg mbir yi di ko jàngat ci anam goo xamante ni bii ni dinañ ca mën a jële ay jàngale loolu liñ ciy mën a dégg rek mooy ànd ak nitu yàlla dafa gën a wóor xanaa xamoo nekk nitu yàlla wóorul ànd ak nitu yàlla moo gën a wóor ndax yàlla du tas yaakaar waaw kon loolu mooy rawaan mbokk yi rawxaan loolu la du du leneen am na lu nu li ci cheikh alhaaji malik radiallahu taala anhu ci góor gi mam mëgay njare lu mel noonu dal na ko ci cheikh alhaaji malik mbokk yi damay bañ sama waxtu dem nu doyloo benn exemple boobu rek kon nag moom wakkaanat nekkoon na moom way juru cheikh alhaaji ma cheikh Seydi Ahmad Tidiane radiallahu anhu benn la rek cheikh Tidiane moom boo nee cheikh Tidiane boo nee Seydi Malick benn la ah benn waaye nekk na fii lii may wax nii Sénégal gii la këram di lakk mu woo cheikh Seydi Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu fi mu toog la toog gis Seydi alhaaji Malick jël ndox di fay lakk te cheikh Tidiane la woo man li may wax xam naa ko kon nag da ngay wax ni moom way juram woowu wa kaanat nekkoon na taatihi daan ko dikkal ar ruhaniya loolu nga xam ne moo di rawaan yi yatlubuuna daan sakku ñun hi ci moom qadaa hawaijihi fajal ko ay ajoom dañ ko daan wax waxal li nga bëgg ñu def ko te bu ko waxee ñu def ko mais fa kaana nekkoon na moom way juru Cheikh Seydi Ahmad Tidiane radiallahu anhu yamtaniu minhum daan aaye boppam ci ñoom wa yaqulu daan leen wax naan utrukuni bayni wa bayna allah bay leen waay topp leen dox leen sama diggante ak yàlla dox len sama digante ak yalla top len sama digante ak yalla la hajata li bi taalliqu bi si walla man awma ma soxla awma ma ci di aju ci lenen lu yalla man soxlawu ma dara dara dox sama ak yalla taala bur yalla mi jombe xan ci de war nga xamni war na jur ku melni deg Cheikh Tidiane wow, anhu deug deug way waw xam nga nit nak bo xame ay renam am meññantam waru la jaxal waaw xanaa nga ñàkk a xam ay reenam ay reenam mooy cosaanam ah xale yi dañ déggatul wolof la ma sama benn jigéen di wax mu ne ma man nag wolof yi ma ne ko waaw man nag xam nga mag ñee ma yar donc c'est normal may wax ay wolof yu xóot <laughs> te wolof dafa riche nañ ci bàyyi xel kon da ngay wax ni kaana nekkoon na moom way juróom woowu mutaalliqan di aji di di ku aju billahi ci yàlla waaye qaiman nit boo déggee ku aju ci yàlla mooy koo xam ni yëngoom ak dalam waxam ak noppeem taxawam ak toogam demam ak dikkam lépp yàlla la yàlla nañu ko yàlla defal nee na itam dam nga dégg Siraaj Malik radiallahu anhu di ko wax ca ñaanu wadifa ba wa man taallaqa bil adyaali qaatibatan subba alayna ilahi abxura al الله أكبر أكباخ دم نبا يغ صاح موني واي يالا خولال في موني ميم كيب كو خامني ياكارنا سونو نيان جوليت لام دو جوليت باخ نام باخول تيجان لام دو تيجان يالا فاجال كو اديوم تو دوغال كو سي نيان نون لا كو واخي دي وكل من طلبوا صالح دعوتنا وغيرهم سخنك من ذوي الايمان كلهم نياني وظيفه يي ابري ني توكو فيريكو ndax dana dimbali ki koy jàng ci mu xam ak teew teewlu li muy wax lumu ndax lu ko gën a rëy amut kon da wax ni kaana nekkoon na mutaalliqan di aju moom wayjuru Cheikh Seyd Ahmad Tidiane billahi ci yàlla qaiman di ko taxaw jon bil xaqi ànd ak dëgg lillahi dañeel bur yàlla da daan taxaw ci dëgg te daan ko def ngir yàlla waaye daawu ko def par notoriété déedéet xam nga am na ñoo xam ni kattan gi leen yàlla jox la ñuy utiliser pour feeñal dëgg waaye feeñaluñ dëgg ngir jëmmi yàlla dëgg yàllay borom alxaqu lillah kon da ngay wax ni fii saairi xarakatihi ci ay mboole yëngatuum daf ca daan feeñal dëgg wa sakanaatihi ak mboole ay dalam laa taaxuduhu musu ko jàpp musul faale lawmatu laa'im yedduk aji yedd ndax loolu jikkoy saxaaba yàlla moom nga dégg ci alquran wala yaxaafuuna lawmata laa'im ñoom faale wuñ ku leen yedd ci yàlla de déedéet waaw moo tax mu ni laa taaxuduhu du ko jàpp mooy du yegg ci xolam doo ko wax di ko yedd ci yàlla ba mu yegg ci xolam xam nga léeg nit fekk la di la yedd ci yàlla ndaw nga war ngaa samp kër war ngaa am oto war ngaa mën a tukki nga topp ay nekk ay wasifaak yor ay kurus di tardé dem ay daayire yi fii caaxaan yooyu xam nga kooku mu ngi lay yedd ci yàlla léegi nag bu fekkul nga dëgër ñu pare ci yow loolu noo def mu atteindre la agg ci sa xol léegi àgg googu muy àgg ci sa xol mooy def ci sa xol dut ak jax-jaxal loolu nag musta dal way juru Cheikh Seydi Ahmad Tidiane yi te mbokk yi way jur yi nañu góorgóorlu ci jaboot gi ba bañ di leen yedd ci yàlla waaye par contre di leen ñaax ci yàlla c'est très important moo tax mu ni laa taaxuduhu mosu ko jàpp moom way juru Cheikh Seydi Ahmad Tidiane lawmatu laa'im yedduk aji yedd fillaahi ci yàlla te it wakaana nekkoon na lahu di ko ñeel baytu néeg boo xam ne fii daari yi ca këram la néeg boobu laa yadxuluhu ahadun kenn du fa dugg lan la ko daan doye mu ni xanaa li zikrillahi ngir tudd yàlla moo taxoon mu utoon ca këram néeg boo xam ni kenn du fa dugg ku mooy moom mbokk yi mag ñépp dañ daan am loolu ñu tudde baytul xalwati waaw mag ñépp ko daan am néeg boo xam ne ñoom rek ñoo fay dugg te buñ fa duggee dañuy toroxlu wet di ko yàlla subhanahu wa taala di bàkk yàllaa ka tudd yàllaa ka jàng alquran ak taxaw di nafila ak taxaw di xalaat ci yàlla subhanahu wa taala motax muñ nak way juróom wow tuwaffiya radiyallahu anhu sanata 66 wa 100 wa 1000 wa bi ta'un rahmatullahi taala alayhi tuwaffiya fatuna radiyallahu anhu way juru cheikh sayyid ahmad tidiane bur yàlla doli ngeureum amin ya rabbi sanata 66 wa 100 wa 1000 wa alfin muy atum junni gannaaw ba yenen gadaye bam tek junni at ak temeri at ak juróom ben fukki at ak juróom ben maanaa Cheikh Seyd Ahmad Tidiane bi mu amee 16 ans ndax 1150 la gane jamono 1150 boo ci tegee 16 ans 1166 la lay jox Cheikh Seyd Ahmad Tidiane radiyallahu anhu bi muy am 16 ans tombeek w tombeek yoneen gàddaay ba mu nekk junniy at ak téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn te 1166 loolu dafa garaaw laa ilaha illa allahu mughni la lu garaaw la laa ilaha illa allahu mughni la lu garaaw la am luñ cey tërbiye ca fatiha koku mag ñi ñom ñoko ko xam après yeen dem ngeen top ko ah, man téré yi la xam mom lay wax de ngeen <laughs> wallahi am na ah, am lu ca mag ñi daan tërbiye ca fatiha wa ah, ci 1166 ngeen demee rek ngeen laaj leen ko da ngeen dem ci mag ñi ngeen di leen laaj di sakku seen ñaan waaw di leen di leen di leen di leen di leen dagu sax bu ko jaré waaw di leen dagu sax bu ko jaré ndax mag du yàlla waaye yàgg nag yàlla te barke mag koy am sëñ Babacar daana ko wax nee na yii wolof da koy jaawale wolof day jaawale rey ak rendi nee na lu ñu rey kenn du ko lekk lu ñu rendi la ñuy lekk wolof day jaawale dem màkk ak aji màkk damaa demoon màkk màkk kenn du fa dem dañuy aji màkk nee na wolof dafay jaawale barke ak wërsëg nee na wërsëg ndaw koy am ndax bala koo jot xaw a dee barke mag koy am ndax du yëg lu mu def te lu mu bëgg a faj faj ko cheikh al xalifa radiallahu moom way juru Cheikh Sidi Ahmed Tidiane radiallahu anhu mi ngi wane gannaaw maanaam mi ngi génn àddina ci atum junni ak téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn mille cent soixante six hijriya ca la way juróom wa génn àddina radiallahu anhu moo tax nee na rahmatullah yërmande yàlla taala bur yàlla mi jombi caaxaan yërmandeem ja alayhi yàlla na nekk ca moom léegi nag pare na ci way juróom présenté na la ko wax na la as lëf ci taxawaayam ak jikkoom ak namu meloon léegi nag ak na mu jubloo woon yàlla na mu ajoo woon ci yàlla na mu taxawale woon dëgg sax ca ba wuyu ji yàlla léegi nag mi ngi jëm ci wajuram bu jigéen moo doon kan nga dégg borom ndeysaan eh, ndeysaan sama góor gi Tidjani Ibnu Baba radiyallahu anhu soo demee ca téerim boobu mu def ci eh, eh, fiqhu tariqa tariqa bi tere bi njëkk a nose ci tariqa Tidjane ci fiqhum ki ko taalif moom moo di Tidjani Ibnu Baba buriyatul المستفيد موكو موكو borom buriya moko sharha tere bi ming ko tudde munyatul muridi bu ci ما أنجبت خود من الغواني في كل ما مضى من الزماني كمثل أم شيخنا الرباني عائشة الطاهرة الحصاني خمغا ولف منول تاج بس كده في خبابل خمغا وخبيني كده قلب بو بو بو بو بو فكيا دانكو وخرك تيام فوفو ده في جراو maa an jabat dootu teddati xawdun jongoma xawdun eh, eh, ku taaru ba doyloo taaram minal gawaani tukkee ca jongoma ya taaru ba doyloo seen taar jamcu gaaniyatu la fii kulli ma mada min azamani ca la mësa ba jamono de jamono ba tey jigéen dootu ci teddati tegg tedd nga gu yemoo misli ummi cheikhina ku mel ni mbaa kuy samandaay koo xam ni dana niroo ak way juru sunu sëriñ ba di cheikh sayid ahmad tijaani way juróom mu jigéen woowu nga xam ni moo doon aïcha at tahira nee na ka nga xam ni ku laboon la ku setoon la alxasaani ku sangewu woon la ku téye woon boppam la xam nga lii boo ko waxee ana way juru yonent bi moom ana way juru saxaabaam ya moo tax mu teg ci siwal lawaati jina bil muxtaari wa xizbihi wa sahbihi al axyaari mu ni si wallawaati ba mu des jigéen ña nga xam ni ji na bil muxtaar yi ñoo indi jamono yonent yàlla muhammadin alayhi salaatu wassalaam jigéen ñooñu ñoo gën ku dul ñoom wa sahbihi jigéen ña jur saabaam ya wa xisbihi jigéen ña jur kuréelam nga al axyaar ña nga xam ni ñoo di ay tànneef waaw kay waay nii la ñuy tagge mbokk yi nii la ñuy tagge waye bëgg jël Cheikh Sidi ahmed Tidiane tek ci kaw saaba yi teg ci kaw yonent bi loolu kuko def xamoo Cheikh Tidiane bokkoo ak Cheikh Tidiane waxalo Cheikh Tidiane sa bop ngay waxal kooku it na leer kon da ngay wax ni wa ummuhu radiyallahu anha hiya sayida alfadila alzakiya alkamila altayiba almutahara alxayira almunawara ذات الأخلاق الكريمة والسيرة المستقيمة معنية بأمر الدين ماسك بحبله المتين لها من الصلاح مكانة علية ومرتبة سنية وحظ عظيم من البر والإحسان والتفضل والامتنان دعنا يوخني وأمه ويجرم جينوا رضي الله عنها يا نبور يا الله دولين هي مومودون السيدة سنغبا سنغلاون أخنكي تدنا يوخلو تخ سنغلا الفاضلة سنغبو بخلاون كلام بونغنيل الذكية كسل alkamila kuma toon jikko la maanaa jikkoom yu rafet daama toon at tayiba jigéen la woon ju tey ju dal al mutahara jigéen ju ñu laabal la jigéen ju ñu setal la waaye alxayira nee na jigéen la boo xam ni ca tànneef yàlla bokkoon al munawara jigéen ju ñu leeraloon biiram ak bitéem la zaatul axlaaq boroomi jikko la woon alkarima jikko yu tedd waa jile wasiira boroom jaar jaar la woon al mustaqima bu jub kenn mësu koo xam ci lu ci lu lu ñàkk soloog lu ñàkk waaw déedéet mustaam nee na itam ma ma maaniyatun nee na dafa nekkoon koo xam ni eh, aji jublu woon la parce que baatu maanaa li muy firi mooy jubluwaay buñ ne maaniya mooy koo xam ni ku jublu woon la moom way jur wu jigéenu cheikh sayidi ahmad at bi amri diini ci mbiri diine yi da ko jublu musuko ko wan gannaaw naka noonu maasika aji ngoy la bi hablihi ca buumu diine googu almatini buumam gu dëgër ga waaw ndax nag moo tax ngay dégg léeg-léeg ca salaatu ya soo demee ci dalail alxayrati wa shawariq alanwaari fi salaati ala nabii almuxtaari bi suleymaanu aljazuri alqadiri cheikh tidiane ku bëggoon téere boobu la ndax sëriñam boobu nga xam ni moo nekkoon ca madinatul munawara ñu ko daan woowee alqutbu sammaani moo ko joxoon ndigal ci téere boobu muy teere boobu nga xam ni ay salaatu ala nabi la moo ko joxoon ndigal it ci alwadifatu duruqiya yooyu yëpp ci biir tariqa bi la bokk léeg nga dégg ku la ko laaj ni la ndax taalibi cheikh cheikh Tidiane mën naa jàng dalaayilul xayraat yi ahan kay bañ a mën a jàng lu tee mënu koo jàng loolu ay salaatu ala nabi la kay yow sax yaa ko moom xanaa xamoo loolu Cheikh Tidiane da daan jàng daalu xayraati bëggoon ko ba yonente bi alayhi salaam benn bés mu dikk ni ko xanaa xamuloo ni benn per ci salaat al fatih moom mooy wecci juróom benn fukki yoon nga jàng ko ci dalaayul xayraati ba mu yegg loolu mi ngi ci biir jawahir bi daañ ci ñëw insha allahu taala mbokk yi kon da ngay wax ni moom ca biir eh, eh, ndeysaan téere boobu da nga cay fekk mu indi benn salaatu salaatu bu am solo la eh, dinaa ci maye tuuti rek insha allah waaye nag après ngeen weexal ma ah, du mën ñàkk waaw waaw salaatu bu baax la deen ko jàng allahuma salli ala al urwati al wusqa allahuma salli ala al urwati al wusqa cent vingt neuf lañ koy jàng li mu latif lañ koy jàng waaw dee leen ko jàng subaak ngoon waaw kooku man maa leen ko may kooku suukaru koor la incha allah mbir yi dana baax def leen ko yàlla dana def barke allahuma salli ala al urwati al wusqa allahuma salli ala al urwati al wusqa comme booy jàng rek ca la ikraha fi ddin قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى يننتي بلا خلال يننتي بلا ما لا وخ لي انا الاسلام بي فاي جاب موم موتاخ دانكوي وخ اللهم صل على العروة الوثقى كوكو سما سما سكر كور لا ndaysan mayna len ko bismillah yalna sama borom def ci barke yalna sama borom def ci qabul kon da ngay wax ni moom way juróom wu jigéen woowu maasika aji jàpp la aji ngoy la bi hablihi ca buumam ga almatini buumam gu dëgër ga lahaa amee na ñeel na ko yeyoo na lamboo na moom way jur wu jigéenu Cheikh Seydi Ahmad Tijani radiallahu taala anhu min alsalaahi ci mbaax makaanatun nee na place makaanatun daraja aliyatun bu kowe am na ñoo xam ni place bi ñu occupé ci mbaax c'est un peu restreint c'est un peu petit yaatuwul waaye way jurwu wu jigéenu Cheikh Tidiane radiallahu anhu mbaax ak yéwénal wallaay place bam ci occupé place bu yaatu la place bu kowe la place bu rëy la yal na ko yàlla dool li gërëm moo tax mu daal di ni wa martaba loolu nga xam ni moo di mbaax woy jur wu Cheikh wu jigéen am na ca dayo am na ca grade waaye seni ya grade bu kowe la am ci mbaax waaw waaw nii rek la kay waaye waxadun am na ca cër mbaax way jur wu jigéenu Cheikh Tidiane am na ca cër azimun cër bu mag wa maa yulaqiha illa alladina sabaru wa maa yulaqiha illa du xadin azim yaa layta lana misla ma utiya qaaruna innahu la du xadin azim ñaar yooyu nag am na lu ca yàlla defal Cheikh Tidiane radiallahu anhu lool ñi mi ñu ma ko wax waaye ngeen xam ko rek ñaari xadin azim yooyu yanu na lu rëy ci tariqatu tijaniya maa xam li may wax waaw ngeen bàyyi ko xel rek incha allahu taala ngeen bàyyi ko xel waaw te bu ngeen jugee après ngeen dem ci mag ñi ngeen laaj leen ko dégg ngeen c'est très important kon da ngay wax ni moom way juram mu jigéen mbaax occupé na ca place bu kowe occupé na ca grade bu kowe occupé na ca cër boo xam ni cër bu màgg la dégg nga dégg kon da ngay wax ni laha amena min as-salah ci mbax makanatun daraja aliya bu kowe wa martaba ak grad saniya bu yëkkatiku moy kowe rek wa hadhun ak cër azimun bu mag min al birri ci mbax wal ixsaani ak rafetal wa tafaddul ak gën-gën lu mbokk yi nit fokk ngay gën-gën lu waxuñ la nga ni man ma fi gën waye ngay fexé di bokku ci ñi gën waaw xam nga di nga dégg euh, euh, léeg-léeg dama xamatul borom borom chan fanaa borom chan fara moo ko wax téere la bu ñu daan jàng ca majalis ca daara ja sama sëriñ ba alxaaji Malick Diop sama borom fay ko aka ñu sonaloon ci téere boobu ndax luxa ba daa nag <laughs> waaw luxa ba dafa diis léeg dama daan dikk ma ni ko waa sëriñ bi dañu wax ni téere bii kat luxa bi ci nekk dafa nekk luxa boo xam ne dafa màgget mu ne ma luxa bu màgget amut gaañ ko mënta firi doom toogal nii wallahi loolu la ma daan wax luxa bu màgget amut gaañee ko mënut waaw boo demee ca matlaa ba ma ngay wax aqimu bani ummi sudura matiyikum wa inni ila ahlin am na ila qawmin am na siwaakum la am yelu ma ngay wax banan faqat xummatil xaajaatu wallaylu muqmirun wa shuddat li tayaati mataya wa arxilu waaw dem na ba yàgg mu ni wali ahlun am nañu indi qawmun ahlu eh, eh, eh, duunakum waaw waaw waaw waaw dem na dama bayit bi mooma mooma rëcc waaw mi muy wax banaan euh, bu ñu tàllalee ay loxo jëmee ko ci aw ñam man chan mooy ki bind téere bi c'est l'auteur de ce de ce de ce livre là wala boog de cet écrit là moom dafa ni bu ñu tàllalee aw ñam maanaam bu ñu tegee aw ñam duma bokk ci ñiy njëkk a tàllal seen loxo di ko ci jëmale ñun ko lu tax mu ni dama bokk ci ñuy bëgg gën gën lu te kuy gën gën lu su yàggee nga gën كي بيت بنيونا الحمد لله دفني وإن مدت الأيدي إلى الذاد لم أكن بأعجلهم إذ أشع القوم أعجلوا وما ذاك إلا بسطة عن تفضل عليهم وكان الأفضل المتفضل رحمه الله حجم الجوب ديسان والله ماني دنج باخ ماني دنج تد دنج لي ديمبالي ديسان خولال خولال لي دنج لي جانغال لغه مي ان ميم تان دي لا يار di la cadrer di la canaliser di la orienter ci jikko yu baax xoolal daf ni wa in muddat bu fekkee tàllalef na al aidi loxo ya ila zadi mu jëm ci aw ñam nee na lam akun du ma nekk man bi aajalihim bokk ci ñuy njëkkante ak ñay gën a gaaw pour tibb seex ñu ni ko lu tax mu ni ndax is ajsha'ul qawmi ke gën a fuqale ci nit ñi aajalu moo cay gën a gaaw te fuqale baaxul ñu ni ko waaw kon nag xanaa xiifoo mu ni xiif naa kay waaye bëgg a gore bëgg a gën gënlu mu ni wama zaaka defuma loolu wama defuma loolu waaw illa basta an tafaddulin alayhim dama ko def ngir tàllalu bëgg a bokk gën ñu ni ko ha mu ni wakaana te nekk na te du deñ al mutafaddilu kay gën gën lu foo ko fekk al afdala mooy ka gën nit boo bëggee bokk ci gën dangay gën gën lu c'est très important lo rek la bëgg wax motax tax waajur wu jigéen wu Cheikh Sidi Ahmed Tijaani radiyallahu taala anhu naka nonu wa tafaddul gën gën lu ku ci amoon cier la wal imtinani lolu nga xamni modi modi di moo xéewal loo am joxe ko lo am badil ko nit ñi moy imtinan ci lañ jële man naanu nee fa kanat nekkon na rahimahallah yal bur yàlla dolli yermandem amin ya rabbi kasiratal irda ku bari won lolu nga xamni modi moo la bari woon ngërëm nag soo ko déggee mooy ku xamoon nu muy ànde ak nit ñi la ba kenn ku ci nekk jéppiwuloo ko ku mu àndal gërëm nga ko naka noonu wal buruuri akuk mbaax jamu bar li waalidihi ñel loolu nga xamante ni bii ni moom moo di woy juram woy juram wu góor moom yaayu Cheikh Seyd Ahmad Tidiane radiallahu anhu ku bari woon ngërëmam la maanaa woy juram gërëm na ko ku bari woon lu muy baax jëme ci woy juram la birrul waalidayn naka noonu maa saayiha al mashkur andak jeufum ju santu ja mom way juróom wa Cheikh sayyid Ahmad Tidiane radiyallahu anhu neena baligha neena ku dan jotal la fi dalika ci lolo al gaaya ak lolo nga xamni modi ab akam ak moy lan yi ma wax yeb ci jikko yu bax len lu ci nek du ci dig doomu معنى da دم بجيخ تاك jeex دسال دارا موي بالغة في ذلك الغاية naka noonu wa waasila nee na ku daan ku daan ku daan ku daan yegg la fii ci yii ma wax muy lan nekkoon na kuy gën-gënlu nekkoon na ku baax nekkoon na ku daan rafetal nekkoon na ku daan baax jëme ci ay wayjuram moom wayjur wu jigéenu Cheikh Sidi Ahmad Tidiane nee na ku daan jokku la fii dalika ca loola xaddan nihaaya dayob daytal maanaam fa mbaax yam yam fa mbaax jëme ci say wayjur yam fala yam fala yeggoon gën-gënlu fa mu yem fala yam yem fa la yeggoon moom way jur wu jigéen wu Cheikh Seydi Ahmad Tidiane naka noonu qaa'ima ku daan taxaw la bi adaa'i ba baaliha ci daan teewal aka a jooxe ak yi nga xam ni moo dox ci digganteem ak borom këram googu nga xam ni moo di al Cheikh Seydi Mouhamed radiyallahu anhu di way jur wu góoru Cheikh Cheikh Seydi Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu moom yaayam ji ku daan taxaw ci jooxe ay xaq yi nga xam ni moo dox ci digganteem ak borom këram la radiyallahu anha naka noonu mutiyaatan ku toppoon la topp gu àndul ak coobare li amrihi ñeel ndigali way juram ak ndigali kooku nga xam ni moo di borom këram waw delloo ko ci borom këram mutiyaatan li amrihi yaani mutiya li amri baaliha wa kalaamihi ak ay waxam waaye naka noonu shadidatal i'tina nee na ku taroon ak eh, loolu nga xam ni moom moo ak sonne waaw al itina mooy sonne dafa dafa dan dafa dafa metti taroon lool nim daan sonnee bi sha'nihi ci mbiri jëkkëram ci mbiri borom këram wa maraamihi ak bëgg-bëggi borom këram tataxarra nga xam ni daana roy muraadahu loolu nga xam ni moo di ay bëgg-bëggam roy ay bëgg-bëggam mooy lan lépp lu borom këram lu mu xam ni bëgg na ko balaa mu ko wax mu dem def ko loolu mooy tataxarra muraadahu loolu nag mbokk yi mooy soxna mbokk sama mbokk yu jigéen ñi may déglu nañ ci bàyyi xel te lii ci wayjur wu jigéenu cheikhana ahmad atijani radiallahu taala anhu jigéen mooy defar société nañ ci bàyyi xel de hmm. nee na wa tahtammu daana yittewoo moom wayjuróom mu jigéen bi maa ci lépp loo xam ni araadahu bëggoon na ko mbaamu namoon ko moom borom këram naka noonu tujillu qadrahu wa tuazimu amrahu ay waajile lii aka am solo jigéen ñi sama yaay yi Eh, ndeysaan tante yeeg suma mag yeeg suma rakki suma jarbaat yi maa leen di wax ni waajur wu jigéen wi nga xam ni moo jur Cheikh Seydi Ahmad Tijaani taajul aarifin foo ko fekk tu jillu daf daan yëkkati daf daan màggal qadrahu daraja ak dayob borom këram musta suufeel borom këram borom këram du ko jox ñaar téeméer mu daal di génn dajeek ay moromam jëm ca marché ba ñu ne ko tey looy togg mu ne ma ne xaw ma sax li may togg ne li ma jox xawma lu mu mat musul def lolu nañu moytu yoyu mbokk yi et c'est très important kon da ngay wax ni tu jillu dana magal qadrahu dayo ak daraja bi nga xamni ni moom la borom kërëm amé waye wa tuazimu dana dana magal itam amrahu mbiram musul nango tutil borom kërëm ndax tutil sa borom kër moy tutil sa bop koko amul werante ndax jëkër ak jabar ñu baal ma biir ak biti rek la aywa naka nonu wa daana sàmmonte moom way jur moom way juróom wu jigéenu Cheikh Sidi Ahmad Tidiane daana sàmmonte lan la daan sàmmonte fii ak borom këram xaqa mawlaahu loolu nga xam ni moo di xaqi boroomam wama ak la nga xam ni xuqa yayees na lahu di ko ñeel wa awlaahu tang méngu ko ko moom moom nga xamante ni bii ni moo di borom këram nee na xawaala waxaakoon la lil xaqi di ñeel dëgg moom way jur wu jigéenu Cheikh Sidi Ahmad Tidiane na ko na ko jëkk mësta fen ngeen baal ma dëgg la daan wax mbokk yi mooy xawwaa la waxaakoon la lil xaq di ñel dëgg naasixa nee na ku daan laaye biir la ku daan conseiller la lil xalqi di ñel mindee fii muxaafida ku daan wattu la ku daan sàmmonte daan jox worma ala diini ci diine la wa sunanil muttaqina ak yoonu way ragal yàlla ña taxmilu daana gàddu ak di toppatoo awlaadaha ay doomam wa aqaaribaha ak ay jegeñaaleem alayhi ca mom wa turshiduhum neena daana jubal billati ca la nga xamni ni hiya moom ahsanu alayhi mo gëna rafet ca mom gis nga nit bu la yàlla bolé ak mom dom lam du dom waye mu nek ci sa pegg nek ci sa responsabilité da ngay fexe ba jubal ko ca la gëna rafet orienté ko ca la gëna rafet waxuma li rafet de le gëna rafet la wax nee itam kathiratan nushi ku bari won ak laye bir la lehum di leen moom wayjur bu jigéenu Cheikh Seydi Ahmad Tidiane war rahma ku bari woon yërmande bi bihim ci ñoom ka kathirat al adkaari ku bare won lu muy tudd yàlla la wa salaatu ala ku bari woon lu muy julli ci yonent yàlla muhammad alayhi salatu salaam al muxtaari ka yàlla tànn belli ko waaye mu waawaba nee woon na ku taqoo la ci tudd yàlla ak julli ci yonent bi alayhi salatu salaam ana al layli wan nahaar guddi ya ak bëccëg ya ana al-layli wan nahaar waxtuy ak waxtuy bëccëg ya wa waala te daana méngoo alayha ci loolu nga xamante ne bii ni moom moo di eh, jàng alquran julli ci yonente bi alayhi salatu salaam tudd yàlla min rahmatil azizi ci loolu nga xamante ni bii ni moom moo di yërmandey aji noot ja këtta ñëpp di yàlla yàlla moom daata ñëpp kenn mënul ci moom dara yàlla loo dégg ku ni maa ngi liggéey yàlla de maa ngi maa ngi noot yàlla maa ngi liggéey yàlla doo ko dégg de aziz la moo tax daa të aziz mooy firi ku të ku kenn mënulul dara moo tax nit kenn warul wax daa të nit du të dégg nga wolof di wax nit lu mu të të du të ay mbokkam nit du të waaw yàlla rek kay të nit nag mën naa di naqari deret dëng waaw waaye të yàlla rek aziz mooy ku të alxafaari mooy koo xam ni ku bare lool lool lool njëggal la yal nañ yàlla jégal radiyallahu anha nee na yàlla na buur yàlla dolli ngërëmam taala buur yàlla mi jombi caaxaan anha ca moom wa ardaha te gërëm loo ko gërëm ko mooy yàlla gërëm ko ba mu bég gërëm yàlla wa jaala ta def moom buur yàlla aljannata këram googu di aljanna kum fa dugal teral na la yàlla nañ fi yàlla dugal maswaaha di saxuwaayam wa mawaaha di tappuwaayam yal na ko yàlla defal defal nu ko defal ko mboole jullit bu ko defee nag hiya moom kooku ñuy wax alxurra mooy gor sax النفيسة كان خمني نتكو كو شير لا السيدة سانغلا نمت الدون من عائشة بنت السيد الأثيل الولي الجليل ذي البركة العزيزة الأنواري أسكنه الله مع الأبرار ووالى عليه المن والرضوان أبو عبد الله سيدي محمد بن رفع ابن السنوسي التجان المضاوي أوكي دعي وقني moom moomu ñuy wax nan la tuddoon moom way jur wu Cheikh Cheikh Sidi Cheikh Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu an mu ne Aïcha la tuddoon de Aïcha la tuddoon de bintu Sayyid moo doon doom ju jigéen ñi sang boobee al athil sang ni bii ni ku ku màgg la woon athil ah ku màgg la woon alwali nee na nitu yàlla la woon boo xam ci collaborateur suñu borom yi la bokkoon aljalil ku màgg la woon zil baraka nee borom barke la العزيز ولا بوك الغزيره برك ببري الغزير يعني الكثير آه، على بوك الغزيره الانوار كبري اي لير كبري اي لير نكا نونو مو اسكنه الله يالنا بر يالا دكلكو مع الابرار بوليكو نيو باخيا ندخ ان الابرار لا في نعيم يالنا نتي يالا بولي ووالا يالنا مينغو عليه تي موم المن يالنا يالا مينغليكو المن لولوغا خامني مودي خيول والرضواني ak ngërëm way juru jigéenu way juru cheikh Seydi Ahmad Tidiane mana cheikh Tidiane way juram mu jigéen Aïcha tu la mom moom lañ daan wax Layla Aïcha moom way juram wu góor maanaam maam ju góoru cheikh Tidiane ci wàllu yaayam moom lay wax ni mu ngi tudd Abu Abdillah Sayyidi Muhammad ibnu Sanusi Tijaani al-Madawi kooku moo jur way jur wu jigéenu cheikh Tidiane radiyallahu anhu moom nag way juróom wu jigéen woowu ak way juróom wu góor woowu ñoo bokk benn bés bu ñu faatu ca aynu maadi booba Cheikhu Tidiane fukki at ak juróom benn la am kii de tel na ñàkk way jur wajile ndeysaan ca yàlla nii la kay de uhuh. tuufiyat faatu na radiyallahu taala anha yalla bur yalla doli ko gërëm amin ya rabbi mom way juróom bu wo woowale di layla aisha fi yawmin wahidin ci ben bes ma zawjiha and ak borom këram ba bi ta'uni ci épidémie bo xamanteni bi ni amon na fofele ci yoyele jamono épidémie yag na am ci jamono te itam ñu bax yag nañ ca dem xana di moytu rek ak di ñaan yalla di jéggelu yalla ak di génné sarax rek lo rek mo ci am solo denga. nga wa dufina te dencef ne len ñom ñaar maan ñom ñaar bi ayni maadi ci dëkk boobu nga xam ni moo di ayni maadi mooy dëkk ba Cheikh Seyd Ahmad Tidiane radiallahu anhu ganee jamono mbokk yi bi taarixil madkur nee na ci dat boo xam ni dat bu ñuy tudd la inchaa allah wala walahuma ñeel na leen ñoom ñaar muy ñaari way juróom yooyu moom Cheikh Seyd Ahmad Tidiane di way juróom wu góor ak wu jigéen amee nañu radiallahu anhuma yal na bur yàlla dolli seen ngërëm amin awlaadun ay doom yeneen xëyru sayidina yu dul yu dul rek Cheikh Cheikh Tidiane déedéet bu leen yaakaar ni Cheikh Tidiane radiallahu anhu moom rek la ay wayjura am déedéet loolu lay wax naan walahuma amee nañu ñoom ñaar radiallahu anhuma yal na leen bur yàlla dolli ngërëm awlaadun yeneeni doom xëyru sayidina yu Cheikh Tidiane radiallahu anhu dhukuran wa inatha dhukuran doom yu góor wa inathan ak doom yu jigéen moy wamatu fatu nañu kulluhum ñom ñëpp ñëpp ñëpp fatu nañu rahimahumullah yalna bur yàlla doli seen yërmande ñom ñëpp fatu nañu falam yatruk bayiwul minhum ca ñom illa sayyidi muhammad kudul kok nga xamni modi sayyidi muhammad waladan dom wa bintan ak wal dom ju gor wa bintan ak dom ju jigen fahazahuma xaazahuma laq na leen kan moo leen amee sayiduna suñu sang ba radiallahu taala anhu di cheikh sayid ahmad tidiane radiallahu anhu moom moo mujj amee leen après nag incha allah dinaa leeral foofu bu ci yàlla ande e tabarakallah e xam na bu fekkee dina baax noonu waaw ñu daandee la ni noonu rek waaw ko defee ku ñu bëgg a jokk mu jokk ñu ci 77 102 vingt 24 bu ëllëgee incha allah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 لأن كل من رآه يحبه حبا شديدا ولا يستطيع مفارقته ولذلك كان يتبرقع وسئل عن سيدنا رضي الله تعالى عنه قال أنه بلغ مقام مفاتيح الكنوز لسبب هذه الفعلة فأجاب رضي الله عنه بأنه لم لم لم يبلغ آه، هذه المقام أو هذا المقام لأن كل من بلغ هذا المقام يعني المقام آه، آه، المفاتيح الكنوز لا يتبرقع laa yatabarqa laa yajcalu cheyan fi wajhihi wala yasturu wajhahu ah dañ ko laaj ni ko lu tax mu daan muur xar kanamam ndax dafa bokkoon ci mafatixul kunuuz yi mu ni déedéet mafatixul kunuuz yi boo ci bokkee da mat sëkk dootoo muur sa kanam mu ni nag jombul jot na maqaama bu mag ci yàlla ndax ku ko masaan a gis da ko bëgg ba doo bëgg a tàqalikook moom moo tax mu daan bëgg noppal nit ñi rek daan muur xar kanam kooku ñeenteelu maamam la après ci askanam daañ ci ñëw incha allah moom moo ci tegu Eh, eh, ñaata minute nga am sëriñ baax na baax na baax na non baax na tey tey tey une heure quinze yi nii baax na xamul dax sama boppay metti waaw mais nag bu ma xamoon une heure quinze damay continuer dëgg dëgg non dafa tuuti ah, waaw da dana ci baax parce que dama yaakaaroon ni am na une heure une heure quinze dafa tuuti lool lool lool sax mais baax na sax mbir la baax na alaaji tuuti na de ah. wax nga dëgg nag waaw comme wax naa ci way juróom góor ak way jigéen doy na kuur ñu dem ci askanam nag ah. waaw ankay ankay ci la bokk ñoom ci lañ bokk ci lañ bokk ca la ilaha illallah yàlla yaa baax <laughs>